la ginnaaw ba yàq sama der du ma jaar dara bàyyi leen di bakkaar wax lu la wóor yéen ne lislaam da koy <laughs> loolu toog na loolu nee tey koor gi dañuy aaye eh, rek leen koor gi commencé naa métti démarré gul xamala la xam naa la baax da ngay bandi bandul di way wayulu bëgg a dox sa koor comme xam nga la del woor man ak dog magum jëm nga yaa ngi ne sa cus yi nee na bëri yow man ak dog yow yaakaar nga ne man dinaa woor ba heure bi di dog doogu ma dama lay wax ne koor gi dafa métti bu métti da ngaa dafa métti xam naa la de dama koy kon ne xam naa la bu baax nga yërë <laughs> bandi kon sàcc baa ngi nii bandi baa ngi sàcc baa ngi nii sàcc international nga sa biiru daaxit bii nga yor naa la bu baax mooy xoolal kii yeeg verre yi bàyyi nii mu la tuuj gisul nii dégg nga xoolal bi yow da nga fàtte diw xanaa bi ngay ñëw de quartier del diw del diw booy eh, xoolal seen morom yi baay lañu de lu ngeen war du wax seen baay bu leen ñu ko wax yéen da ngeen xam man ngeen naan sàcc bi ombooni sàcc yow sàcc nga amul sunu baay amul sunu rakk amul dara yow saa nga sàcc nga gis nga suñu tonton lim ñuy fay nga ñu koy jox danga koy dagg sa biir bi koo gis xam ne biiru riba la yow vrai lekkaru riba nga yow sàcc na kii li wax mooy dëgg dangay nekk fii di bandi bandu parce que ñun xam nañ la kër gi fii bu tabaxoo ba yegg si fii grâce à ñun parce que ñun ñooy liggéey ñu lay jox nga ñuy fay bàyyi li ngay dagg lu tax nga koy dagg. Euh, mani ah, mani ñu dugal versement sax fa juróomi téeméer sax fa juróomi téeméer. xoolal ah. xoolal dama leen bugg xamal leen. Hmm. man du ma lekk kaalisu kenn. Hmm. seen ndijaay ji lu tax mu def ma confiance. parce que xam man. je suis confiance. confiance man confiance laa ko def. alaaji boobu Diallo Diallo Diallo Diallo baal ma tuuti rek baal ma tuuti rek eh, gis ngeen yéen. loolu baaxul. gone bu bëggee gudd fan day matuk fiil ak mbëb. waaw. yéen seen un réewande ko foo waay foo waay natt weesu na fa. Eh, yow eh, man nag du ma délégué boo xam ne damay jëlee ay membre di leen yóbbu police man quartier bi man maa koy réglé sama bopp. dinaa leen convoqué sama kër te dinaa wax dinaa waxtaan ak yéen. lu leer laa leen di wax yéen ñaar ñii. yow balaa ma ñuy convoqué dama nga jëri demalaa nga demalaa sa sa sa bi. sa baax bi ku gis sa message bi xam ne manqué na demalaa. danoo réew. <laughs> yéen yéen li ah? ngeen waaye li ngeen wax ni seen baay ngeen ko a wax. leen convoqué ah. ak naa. <laughs> yow seen locale <laughs> kii ma mm-hmm. gën a la ma lay wax nag moom soriwul. mooy gis nga kooru daaw fa ko tegoon. Hmm. moom nan ko fa teg rek. surtout social wa na ko organiser ña ko war a jot jot ña nga xamante ni jot na nit lanu jot doy leen ba nga xamante ni koor gi dara dara duñ ko laajaat. gis kooru daaw li nga ma mayoon yëpp tombe ma tegg sama bëccëg bi boole ko ci dama koo joxe mais ren moom boo may jox fexee rek ba yokk xaalis loolu dee na nooy foog dolli de dama ni carte gi bi laa lay jox yow nga xool noo ko def ba mu organisé nga defee ko carte gi de boo ma ko joxee sax doo nelaw ah déet ah, ne damaa sax xam nga lu taxa confiance bi ma doon xool ci yow laa am moo tax ma tuddee la ki ma gënal ñëpp. Ah! ba pare gën ci man lépp. waaw maa ngi jàmm nag <laughs> maa la ko wax changement total laa fi. waaw waaw xam nga man si maa laa benn yoon laay tooy. ah moo gën de te fi na nee xepp ci yow. tooy daal yem ci man bëgg naa ko. koor gi daal sa koora. Mm. noo ko doxalee yaa ko moom. kon koor gi daal maa ko téye amee. yaa gi dama la ko suudes. kon baax yaa ko moom. kon bu ma paree rek woo xale yi. waaw waaw. ñu dem. doxantu ji waaw lu la daal di la bokk. Ah, ah. que danoo toll ci jamono boo xam danoo war di dimbalante. Mhm. ndax bool. Mhm. yow la waaye la joxee bool yi dalaa war ah, moo tax koor ga loo ca mën a ma mën yëpp bi nga may jox daa may retiré. carte bi naa ko def <laughs> yaa ko moom xaw ma joxu carte surtout guddi la mm. bàyyil ba suuf sedd na mag ña doon def nga fëgg nit ci fenêtre am koŋ koŋ ba mu génn nga jox ko koy jox. ci sutura waaw moom daal li la wax rek bu ko China bu ko TikTok. dëgg la da ngaa bëgg sutura. sutura moo baax. te nit ñi nag ñi ngi maye bu ñuy dem dañuy ànd ak seen caméra. moo tax duñ caa topp di leen vidéo dugal si YouTube bi. bu la neex nga def loolu. dañu ko def dañaa gëm may yàlla laay liggéeyal. xam nga dafa am jaamu yàlla ak liggéeyal yàlla. xool kay kenn gënu la fi. mi ngi noonu xool waaw yow la gaaw la nag de. moo tax booy wut jëkkër. Hmm. ko coppati. nga ni ko na rafet. te sant na rafet eh, loolu bàyyi ba ba ba. Alaaji Alioune Mbaye. waaw yow Alaaji Alioune Mbaye. waxal ci sa jabaat yi. ah waaw yow de lu mu doon chef de quartier du tuuti. Ah, xam naa ko. defe nga dañ koy fonk. Hmm. dañ koy teg place am. Hmm. Adja Lumbe. waaw ñii def na mënu ma métti ah. ah boy o oh boy kombe kawmo kombe kawmo muñu billahi war nga wax ci ñoom kana kamo xale yi billahi wallahi te ah, eh, ma am gàllaaj rek ah, ah, waaye kon rayoon nañ la fi day jël ay poson di ma posone di ma parce que li mu nekk sa confiance dinaa ko réglé dinaa ko réglé xam nga lu ma leen di def loolu waaye ma def ko def nijaay maa ngi ci biir say gan lañ li jël ko day fees dëgg ah déedéet ah déedéet nag déedéet. ah déedéet nag déedéet bu ko def ko wayu biir war a wax kay. def ko wayu biir nag may leen ma nag da ngeen maa kalaame nag pour ma mat li ma doon faaw ngeen may ma nag. yow bu dee tuuti lan lay xasee wa yow quartier bi yëpp ñu la fa ëpp fi ne waaye jëf du rëy tax ñu fal la bu doon tuutee taay rek yow sax man duñ la fal kon ñoom ñoo koy wax waaye man du ma ko wax. man du ma ko wax waaye nag. gis nga lu ngeen jotee gis nga mbay. waaw xale def war a yaru loo dul wax sa baay waroo ko wax baay jàmbur te xale yi denoo yar di ko xanaa booy xas sa baay sax boo weeru koor jot sax nga war a warmaal weeru ka hmm. bañ a xas sa baay mais maanaam ñoom ñoo nekk lu ne la ñuy def mais xam nga homme de confiance doo ko nekk ci nit nga koy nett lil pour lu yàq man du ma loo nit yooyu waaw man ngeen baax lu leen def loolu moom daal ñëw na lu nu attaqué waaw man dama doon modéré sax ah ah ñu wax alaaji booba lu ko lu lu lu leen neex ah. Ah, may wax ak moom may wax ak ñoom ni leen naa leen convoqué sama kër ñu ne ma sa tuutiwaay boobu yow mënoo convoqué ah, kenn. ah ah waruñu la ah bul développé rek bokkuma nga tàng. daa bari. fii la xam naa ko xam naa xam naa ko bu ñu topp waxu yi sax bu fàtte li ñu indi. sax indi. waaye li ma bëgg ngeen xam ko na ngeen dalal seen xel ci côté boobu ñoom dinaa wax ak ñoom ndax sax ñoom wax da leen a waru ndax man huit heures laa leen xëy di gis nga dix noonu lan dalaas ñëw xam nga heure boobu du heure bii du heure xëy waaye bàyyi leen ba leen sulu ci loxob seet danaa ko faj. danaa ko baax na danaa ko faj. tànk lan lay waxtaan nañu. man ak sa homme de confiance. waaw bi yëpp ah. waxtaan nañu man dëkk bi. dëkk bi waxtaan nañu moom. depuis bi imaam wanee gannaaw ba léegi. Mhm. doonoo amagul imaam. Ah. te xëccoo bi ci jàkka ji l'islam bëgg ko ndax diine organisation la. ñu consorté wu ah. euh, euh, jël imam bi jox la ko yow ci amul lu la ëpp mbay sa jëmm ci nii nga toll bul ko bul la ko fal yow kan koy fal yaa ngi def lu baax ci réew mm-hmm. yaa ngi dimbali néew doole yi te xam naa ne am na am nga njàng moo tax ñu concerté wu man ak sa homme de confiance waxtaane ko waa dëkk bi jox la jox la imam bi yow yaay imaamu raati mu jàkka ji surtout. yow waa dëkk bi ñoom ànd nañ. c' est valide. li ngeen wax nii. li nu wax kay c' est dama ko tooy na lool ndax damaa xam ne lu ma ca waxoon rek sama xaalis laay imposé moo tax ma noonu waaye xam naa ni matoon naa ko sëkk waaye comme ana ana lay sa huwa xam naa ni sax déggu leen arab waaye nit du ne moom la nit du ne moom la moo tax jéemu ma ko woon xalaat. comme yéen ko ñëw ba wax ma ko nag naruma woon sax bokk ci man di jiitay dara. Mm. ndax sama modeste mayu ma ko. Mm-hmm. waaye comme yéen a ko wax dinaa leen téyeel imaam. Mm-hmm. dinaa leen ñun waxuñu ko ñun rek. waa dëkk bi yépp ñoo dajaloo. góor ko ngeen benn wax. ñu ne ma jox leen ko mbay jox leen ko mbay. Ah. man dema def man mbay moo tax nit ñi def lu baax am na solo. ah El Hadj Alioune Mbaye mii. kii du noom lu ala ala an an mbay ala. ah kii mënu amuñu lu ko. man du ma def mukk lu defuwul lu ma def rek dafa lu tax billaay du jëmmam ci euh, moo tax may wax def ko mote ah. def ko mote alaaji booba nit da koy jox li mu moom ah koo dawalee cëram ku mu jox ko jox ko ku euh, ko moomul mu yàqu cër da nga koy jox ki ko moom bay ah, ah. bi sab cër na ko yàlla tombee léegi nag léegi nag war ngaa war ngaa ñëw ca kër ga ñu waxtaanee modalité yeeg yëpp tout ça lu ngeen wax rek maa ngi seen ginnaaw comme am ngeen taraanga ji ba fal ma ma ni damay yaata hmm. waaw ndax ni duñ la jiital rek nga doxee waabale damay yaatal comme maay imaam nag ma ñaanal leen rek comme du timis duggee. ma ma yenu ñaar ki waaw waaye mënoon naa ko tari mu gudd lool waaye comme du timis ma yenu. waaw jërëjëf a jërëjëf kontaan naa ci yéen. ngeen xool seen téléphone yi dana am lu ma ca def dana am lu ma ca def. alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin lii da la naan kër kër moom da toog ba fekk bu ma ko xëcc woon rek tuuti ca lool baa ma am lu ma ko werante waaye damaa toog ba cër bi ñëw moo tax dama ko jël jël bu rafet ana